voilà buzz du net tout ce qui est tendance les folies elle est tellement folle que elle se sent bien dans tout ce que les fous proposent dans le monde. C'est les fous qui font le monde, Pape Cheikh. Et il paraît qu'il faut une très belle dose de folie pour créer les plus grandes œuvres de ce monde. et La folie est belle. <laughs> donc Pape Cheikh pour commencer tey mode la ñuy def on va commencer ci festival de Cannes parce que dafa am benn euh, euh, gala boo xam ne chaque année moom la people yëpp bëgg fekkee muy euh, gala bu fondation américaine contre le sida am euh, amfar voilà donc ren amoon nañ plus de 900 people yoo xamante ne dañ fekke woon euh, événement boobu parce que ñëpp avec ma copine Awa Longoria ratatati <laughs> alors euh, dem naa ci gala euh, festival de Cannes bi gëmuñu ma j'étais ay ma copine Ndeye Awa Longoria. <laughs> Ndeye Awa Longoria Eva Longoria xam nañ waa di wër bi ak say appartement <laughs> xam nañ loolu donc Pape Cheikh euh, gala boobu chaque année dafay permettre ñuy lever ay fonds yoo xam ne. très important pour recherche contre le bu ñuy euh, cinq virgule millions d'euros lañ lañ fa lever comme fonds ça veut dire cent soixante sept milliards vingt cinq millions ci ay ci lu ñu jaay am na benn euh, tableau bu ñu jaayee trois cent quatre vingt mille trois cent quatre vingt mille euros am na benn fossile mammouth doré dañ ko créé spécialement pour événement bi onze millions d'euros lañ ko jaayee ah. et puis des colliers Bulgarie et tout cent millions 400 millions d'euros. Euh, 400 000 400 000 euros plus. ah oui 400 000 euros mais j'étais là-bas li muy wax nii yëpp mën naa ko dëggal man maa ngi toog. am na am na yow yaa jënd yaa jënd œuvre Picasso bi les vidéos sont là la télévision ne ment pas. Pape Cheikh yaa jënd œuvre Picasso. direction télévision Futur Média ils n'ont pas diffusé festival. mu ngeen xaar tuuti ba parce que dañu bëggoon bu ñu ko jaayee TFM TFM euh, jaay ko télévision France mais TFM a dit euh, exclusivité lay jël. Euh, pour festival de Cannes. exclusivité ou rien. Mhm. voilà et je te dis j'ai même acheté une montre là-bas à un million de dollars. on sait. Pape Cheikh. Eh, oh, il est où mon assistant. andi ma sama montre s'il te plaît mon assistant il est là. am kay kay jox ma. ñëw la kay jox ma ko nii waaw. sama assistant a nii. yow keroog yow du yow laa bàyyi fii merci. c'est mon assistant mooy sama sa doom bi dañ lay seetaan. lii maa ngi ko million de dollars. et furi na de. 2 millions de dollars laa takk sax mais dama demoon pour weñ bu dal ci weñ rek. ma jënd bi 1 million dollars. je l'ai acheté à daddy. lii ci enchères la bokkoon. bah oui. on sait. mais aw longor moo ne ma jënd ko. léegi bii ñaata nga ne beneen bi nga takk nag. 2 2000 xam nga ratatati bi dafa nar a ex feebar na sax. je te jure que demain dinaa fi indi. symbole mooy yax yooyu ñuy yëy takk ci buum. sama yëf a ngi nag donc je l'ai ci gala bi. voilà merci donc gala bi Pape Cheikh kenn mënul weddi di. non non non nañ continuer rek. Ah, gala bi teraanga àdduna <laughs> bi bii moo ko fi jiitu. waaw nañ ko awo la awo baa ngi awo bi waneel ma niroog montre bi Mao di takk de. <laughs> bon si la caa million de dollars daa niroog montre Mao. waaw ay si tu dis qu'elle coûte plus d'un million oui mais un million de dollars c'est. yow xam nga lu la daal. xam nga lu la daal. lu la daal yow <laughs> <laughs> <laughs> ma wax. donc euh, festival bi Pape Cheikh dafa permettre ñu trouver ay médicament yoo xamante ne day permettre ñu traiter euh, sida yi xale yi di am et euh, def ay tests ba nga xamante ne yaay yi même quand elles sont enceintes mun nañ bañ a transmettre sida bi seen doom yi oh. donc c'est enfin festival boo xamante ne caritatif mais mondain aussi parce que sañse yi daf fay bëri mun nañ gis euh, première photo bi Aïssa Maïga moom Jean-Paul Gaultier moo ko pour vote bien kan moo dàq sañse après di ngeen choisir entre ñi ñu fi wane yëpp Aïssa Maïga voilà en Jean-Paul Gaultier am nañ Alès yaraax na bi bi dina neex Pape Cheikh comme dafa yaraax Aïssa Maïga en am nañ deuxième Alessandra Ambrosio moom Roberto Cavalli moo ko solal mooy deuxième photo bi ñuy bi ñuy gis ah kokan la fii rek am nañ troisième photo la top modèle euh, Chanel Iman moom tamit euh, robe ba ma ngi nii voilà après dañuy voté comme ni ñu ko defee la dernière fois quatrième photo bi yëpp rafet na quatrième photo bi Heidi Klum en Versace et puis cinquième photo bi Irina la copine de Cristiano Ronaldo toujours en Versace donc après il faut ngeen wax ma kan mooy seen number ñaari mujjee bu bleu bi ñaari mujjee bu bleu bi man gel bu njëkk bi Aïssa Maïga Aïssa Maïga yow na da ngaa nopp Aïssa Maïga Aïssa Maïga non j'aime bien Aïssa Maïga bien ce qu'il a porté j'aime bien voilà c'est très joli elle se la fait simple hein ouais simple quoi rek ak waa ak box bon après nous ne sommes pas trop euh, pas trop près de l'écran pour pouvoir euh, gis photo yi vraiment mais les deux dernières là les deux dernières robes sont man dernière bi Irina c'est vraiment robam bi moom sax tapis donc comme ni ñu ko defee la dernière fois yéen tamit waa internet mun ngeen continuer voter mais am na benn robe boo xam ne hors compétition laa ko def mooy sixième photo bi bu fekkee mën nañ ko gis euh, Diao voilà vous vous rappelez de Conchita Wurst. oui. sa xarit ba. voilà mu gagné Eurovision. moom it daa dem def roobam sañse donc man finalement dama dama fi ma fi ma toll nii ci déterminé ndax góor la wala jigéen la non la pour parler d'elle pour parler d'elle la plupart euh, euh, disent elle. oui donc pour parler de moom ñëpp léegi elle la ñuy wax. la ñuy wax parce que tam. c'est une la qu'il a ou c'est ouais, euh, lay teg. ah d'accord ouais. mais en kii rek kii la ñu. Kim Kardashian exactement. donc gel yi def nañu robe mu def robe à partir de maintenant on va l'appeler elle. bu ñu jógee ci festival de Cannes bi dafa am benn tendance boo xamante ni dafa xew temps yi mun nga téye foto ba ci kanam Mao donc euh, affaire bi yëre la. damay essayer ngeen deviner lan la du veste du chemise du robe du gilet du robe de chambre mais c'est tout ça en même temps. un t-shirt. pardon j'ai pas la bu nekk tendance actuellement. oui. c'est pas une veste c'est pas une chemise du robe de chambre du gilet du robe mais c'est tout ça en même temps. kon tendance lu ma doon xamul. kay tendance comme man maay laa gaaf kay naa noppi rek. waxal rek s'il te plaît. non non non parce que non dama fi rek may laaj sama at yi ma wax la fii nga ree ma. loolu aussi non non non. non Pape Cheikh tey ci sewoon ma la. tey ci sewoon ma la xamul. lu ma doon yëgul xamu ko. waaw ma doon daanoo yaay Google Prime. donc yow xamoo. déedéet déedéet waxal Pape Cheikh. waaw diinu. ni ñuy waxee ma mujj wax. kimono. moom nga sol nii moom laa sol nii am nañ ay photo kimono d'habitude suñ koy dégg ci geisha yi lañ ko doon xam donc euh, comme euh, photo bi si topp Mao pare nañ ci Conchita waaw voilà d'habitude d'habitude ci geisha yi lañ ko doon xamee da nga doon gis ñu jël seen kimono sol ko tax ko mais kimono dañ ko revisité am nañ yeneen photo ba nga xamante ne actuellement dafay tendance mun nga ko boole ak sa jean t-shirt mun nga ko boole ak combinaison comme nu ma ko def nii tey ak benn ceinture métallique mun nga ko booleeg euh, short. pour été bi waaw mais ça n'a rien à voir avec les kimonos ça laisse tomber. mais si c'est un kimono boo ko tourné tax. ah euh, robe de chambre ah. chemise de nuit, hein. <laughs> Bah oui, hein. En tout cas, ça s'appelle Kimono Exides, même si tu penses que il n'y a rien à voir Kimono. Voilà, différents modelings que mon Kimono, En tout cas, c'est en vogue actuellement. Après, à adopter. Ou pas, personnellement, j'adopte parce que. Bon, après, exactement kimono traditionnel. Non, ça n'a euh, rien à voir avec les kimonos traditionnels. pas simple. Mm-hmm. il faut que nga dem gis ay spécialistes. yu la ko mën a euh, solal dit euh, comme di nga sol nii li ñuy gis nii. c'est tendance ça rappelle un peu voilà ça asiatique il faut que tu comprennes parce que. inspiration voilà c'est ce qu'on a compris un peu tendance kimono de porter euh, jël ah, beneen bi teg ci kawam. le style là ça existe je pense depuis très longtemps. mais là c'est tendance encore. ci été bi parce que dañ revisiter déjà c'est imprimé avec des fleurs boo mm-hmm. solee affaire day euh, day joxe. voilà day joxe peps et puis pour été bi température yi parfois matin bi day tàng ngoon nga dem ba mu am mhm. coupe vent lay nekk pour été bi boo demee la dernière fois que maintenant la tendance c'est beaucoup de fleurs dans les habits Et puis, de ce fait même boo solee tout blanc teg ko mhm. ah, dafay may voilà day may jëm sa sañ te daf koy gën a génne donc même plage bu fekkee sol sa benn maillot de en montant nga jël sa kimono ah. teg sa kaw. et puis dafa neexal dugg si sa souvent chez les filles trop veste, trop serré là c'est yiw te veste actuellement ak tàngaay bi du dem te lii en général ay tissus yu léger lañ koy defaree donc boo ko ci été bi un euh, petit ma doon neen nga wane sama sant. voilà kon dugal taxaw kay ñu gis sa sant dugal taxaw bon d'accord et là on saura vraiment comme bëgg nga wane sa wane sa sant rek nga bëgg ndeysaan Ndiaye voilà. mais jegel ku mënoo. la coupe la coupe. Eh, kon ma xam ne robe de chambre la gën a jege ay chemise de nuit la gën a jege. ay kii ça rappelle ça rappelle. ça rappelle juste ça rappelle et même tu vois comme ça ni nga ko solee une ceinture dessus ça fasse ni nga ko solee nii léegi surtout qu'il y a des ceintures yu xew mooy yi ngay takk fan yi ça se vend partout voilà c'est ça voilà c'est très beau moi j'ai vu euh, les femmes mettre ça avec des euh, tailleurs euh, non c'est très tendance ceinture bi tamit comme genre yére olof yu ñëw ñu def ci voilà teg ko ci si si day ànd ak moom parce que dafa nekk tendance moom n'est pas cher am na ay affaires yu ñuy créer là yi def ni am affaire sud africain avec des couleurs dama je t'en mets mais ça c'est très joli. loolu commencé na xew yi sax ah. mais je j'aime bon xew naa xew mais c'est un truc que j'adore. c'est sud-africain ak collier bi ak. Euh, voilà ma sol la tudd kimono. ok bijou ak lan ak yaa ngi kimono du ma kimono la. ak lan. si tu peux faire des recherches ok ak lan ak lan. robe chambre. ok d'accord euh, ak lan. àggali <laughs> Jean Paul Gaultier in the place. voilà ak lan. ok bi je ficcir rek kii war na tas ba pare séeréer yi war nañ ñëw demal. d'accord merci. soo leen bëggee tam mun naa arrêté. non non ah, ma neexee ma arrêté. waaye ma si naree stressé ma arrêté. yow de nañu faral di kii mooy lekk yow nañu yàlla waa dama la. kii moo la bëgg mais kii de toute façon du sama référence en mode. donc tu peux defal defal defal Atia. on sait comment tu t'habilles hein. fais à la tubaab fais à la tubaab. bon d'accord euh, pour troisième affaire bi défilé incroyable bi amoon ci week-end bi c'était Célira kan euh, Alien Cartoon donc euh, dafay imaginer fii ak futur bi Alien yi bu ñu envoyé woon bi Dakar finalement suñu style ak suñu mode naka lay évoluer je peux du ma wane yëpp benn spectacle bu amoon avant défilé bi buy euh, retransmettre invasion alien yi ak tuuti ci défilé bi parce que le reste day jàll biir backstage am nañ vidéo bi ñu xool ko ñëwaat. maquillage de ça. alors ça c'était au défilé de SRK. Mm. et c'était magnifique parce qu'elle est dans un autre monde comme dit euh, Mado elle est très décalée. alors hein? Ah. Alien Cartoon Invasion Alien. la on verra le, ça dans backstage dans non? backstage le ouais. défilé la préparation. c'était vraiment exceptionnel. te nit ñi ils ont vraiment apprécié ouais. c'était plein à craquer. voilà euh, Mado sama bali ngay tas. alors ballon yi pour lan la bisou. <laughs> Ah, ah. c'est pourquoi les ballons. parce que dagg bi nga may dagg soof na ma. dafa eh, comme temps bi day dem de. Eh, waaw d'accord ñu jàll ci cuisine bi léegi nii bàyyi la nga defar ak sa ballon pour war la ni bu ma la daggul rek du baax <laughs>